au président. Euh, mes salutations à Madame le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le ministre du Travail, le directeur du budget, vos collaborateurs, mes chers collègues députés. Madame la ministre, nous vous félicitons à la confiance que le président de la République a portée sur vous à nouveau. Madame la ministre, on a reçu l'information qu'il sera bientôt créé un service aérien à d'après l'article 9 de ce présent arrêté. Madame le ministre, ce service consiste à prendre en charge les enfants en danger, victimes automoins et les enfants en conflit avec la loi. Cette structure va contribuer au bien-être des enfants du département. Donc, service Bob, Madame le ministre, Abna au niveau du département pour nous aider. Je ma madame la ministre fan ngeen ci parce que soxla nañu ko te dama gis ci rapport une augmentation substantielle de 15 milliards 581 millions 763 budget bi ma augmentation qui daf na justifiée sur sept secteurs dont le fonctionnement de 24 nouvelles AMO ma xalaat nag ci 24 yooyu Linguère war na cee mën a bokk moo tax madame le ministre ma bëggoon incha allahu 24 yooyu daal fexe ba waa Linguère nañ ci bokk incha allah madame le ministre que pensez-vous de la situation des éducateurs spécialisés au sein de votre ministère le constat est qu'à chaque fois qu'on donne des avantages ils sont oubliés

ñu bëggoon nag ngeen jàppale leen ci équipement parce que équipement yi xaw naa xaw a kii tuuti ma gis ne à Louga prison ba madame la ministre nee nañu cantine ya dañ koo wër mu am insécurité te cantine yooyu ko wërtee mu am insécurité dañ fay sotti ay mbalit dañuy tuur ndox ci mur bi léeg-léeg ñu dafa jël yoo xam ne sax maanaam jaaduwul ci loo xam ne dañ koy utiliser kon madame la ministre ma bëggoon a xam yan yan matukaay ngay jël pour mën a sécuriser prison boo boole bu fekkee dañ koy déloger ou bien naka ngay def daal ba nga xam ne yooyu nga xam ne ma nga am ci prison bu fa mën a jóg mu jóg fa ñun tim nee nañ ñu détenus yi des fois dañ fay am ay trois ans kenn du leen jugé ñu bëgg tim ngeen jàppale leen ci loolu ma xool tim na à Linguère dañ ne ñoom ñu am problème bu des fois des casiers judiciaires ñu dem ba liggéey di ko fa wuti te y a une de justice à Dara dama xool ne la maison de justice à Daara ñoom dañuy toppatoo di ay casier judiciaire à Louga dañuy dem deux fois deux fois à Louga wala une fois pour war a mën a dem toppatoo ji casier judiciaire yooyu te benn journée bi rek mën nañu dem toppatoo casier judiciaire indi ko kon le département de Linguère surtout yéen waa Linguère bu ngeen taxawee pour bëgg ay casier judiciaire yaa une maison de justice à Daara bu ngeen fa ñëwee déposé vite fait man ngeen am casier judiciaire boobu ma gis tim ki nga xam ne tey mooy Idrissa Balde moom moo nekkoon à Linguère ci service boobu mu li sama collègue bi wax léegi mu def fa mu liggéey bu mucc ayib boo xam ne tey prison ba boo fa demee wala nga dem ci service dañ koy seetaan moom la ñu affecté léegi à Louga moom moo fa nekk. ñu xool tamit les coordonnateurs à la maison de justice nee na ñoom depuis dix ans ñu ngi liggéey te ñu xool ne dafa am seen ay morom yoo xam ne dañ leen di jël intégré leen ci biir fonction publique te yaakaar naa ne ñoom ñëpp ñoo yem ci liggéey bi ñuy def. ñu bëggoon ñoom tim ngeen bàyyi leen xel mën na leen intégré ci biir fonction publique ba nga xam ne avantage yooyu seen morom yooyu am ñoom danañ ci mën a bénéficier wu parce que tim nag ñoo bokk li ñuy liggéey te ma yaakaar na tey inégalité boobu di am ci seen diggante ñoom ñaar ñaar seen diggante ñoom coordinateur yooyu war nañ ko mën a régler kon ñoom tim dañuy sàkk ñu fexe ba ngeen dugal leen biir fonction publique war leen fa mën a intégré ces coordinateurs de la maison de justice donc madame le ministre waat vraiment ci taxawaay bi ngay taxaw ci liggéey parce que gis nañ liggéey bi nga doon liggéey affaire étrangère une dame de fer ñu gis la vraiment ci li nga xam ne te dañ la koo dénk amoo ci benn jaaxaan di ci liggéey kon ñoo ngi lay félicité fii yàlla nañ ci am ndam ci barke Seydina Mohamed merci.